mbokk yi jàngeen jëf ci teewlu bi ay rebondissement yu bees amati na ci ñaari dossier mooy dossier Sonko Adji Sarr bi ak dossier bi nga xamante ni moom mooy affaire viol suivi de grossesse mooy Miss Sénégal 2020 mu di Ndeye Fatma Dione ñu dooree ko ci dossier Sonko aji Sarr bi ginnaaw bi nga xamante ni Ndeye Khady mi jiite Sweet Beauté entendre nañ ko def na audition ak doyen des juges euh, euh, te i tamit kàddu yi nga xamante ne moom la yëkkatiwoon moom la indiwaat maanaam te fa mu ba tey mu mel ni reblanchiraat na Ousmane Sonko ci mbir mi nga xamante ni ñu ngi ko ciy tuumaal li ci bees moom mooy sorti wu maître Abdou jaalikaan nga xamante ni bokk na ci ñiy défendre Adji Sarr nee na euh, ñoom yor nañ mboolem preuve yi nga xamante ni mën nañu jàpp ni viole bi nga xamante ni ñu ngi koy jiñ Ousmane Sonko am na kon ñoom ils détiennent maanaam toutes les preuves qui montrent que il y a bien eu euh, maanaam viol sur euh, l'affaire kon mbokk yi moom mooy li nga xamante ni na beesaat na ci boobule euh, dossier nga xamante ni ba tey nit ñee ngi xaar ngir procès am ngir ñu mën a situer responsabilité yi ñu mën a xam fu dëkk gi féete beneen bi moom mooy wàllu Aminata Badiane nga xamante ni moom mooy organisatrice élection Miss Sénégal weer yi ci ginnaaw xam ngeen ni coow jiboon na ndax it ki nga xamante ni moom mooy Fatima Dione yëkkati woon ay tuuma jëmale ko ci Aminata Badiane ak ci organisation Miss Sénégal ndax nee na moom dañ ko fa sàkku def violé ko ba pare ci la ci jëlee ëmb waaye mel na ne nag retournement de situation am na ndax yooyu kàddu yi nga xamante ni yooyu accusation yi nga xamante ni tegoon na ko ci ndodd Amina Badiane mel na ni dara amu ca gannaaw enquête bi nga xamante ni takk der yi def nañ ko ndax niki démb Aminata Badiane ñu ngi ko doon entendre brigade des mœurs waaye mel na ni avocat am ci bu ñu sukkandikoo ci rebondissement gu bees gi na ay plainte yi nga xamante ni Aminata Badiane war na ko yëkkati jëmale ko ci ay activistes ak jëmale ko ci ay féministe ndax ngir tënk rek plainte yi li koy sous-tendre mooy Amina Badiane va encore porter plainte ci ay kàddoom contre des activistes et des féministes ndax xam ngeen ni la jeune dame Fatma Dione n'a en soi pas le courage de dire les choses sans être téléguidée il y a des gens derrière tout cela il y a certaines personnes qui veulent retirer la licence à Amina Badiane il y a d'autres qui veulent la concurrencer parmi les féministes il y en qui veulent euh, eux. Certains ont essayé de faire des dons et des promesses pour qu'elle renonce à sa couronne et pour qu'elle dénigre Aminata Badian. Ils ont réussi car la candidate de Miss Monde à déserté parce qu'elle est découragée. C'est un gros préjudice. Depuis l'éclatement des faits, les sponsors euh, n'ont pas respecté leur engagement c'est injuste la véritable victime c'est Aminata Badiane ndax moom avocat bi jàpp na ni véritable victime bi dëgg Aminata Badiane la moo tax nee ne ne sommes pas dans une démarche de nous venger du ñu maanaam dañu ne waaye plutôt un dynamique de réparer un honneur qui a été mbokk yi di leen jaajëfal loolu nekkoon ay kàddu avocat maître Babacar Niang kon Aminata Badiane mel na ni retournement de situation am na en sa faveur ngir mu wëlbatikuwaat plainte bi jëmale ko ci nga xamante dañ ko tuumalaan ci mbir mi